yéen AFP nag yi yéen laay mujjee <coughs> bu kenn tiital bu kenn xoqatal parce que ay gaynde ngeen vous de l'AFP vous êtes des lions et des lionnes <coughs> kenn du leen tiital kenn du leen xoqatal kenn du leen lan lan la croire en croire en Dieu yàlla travailler ni ko alxuraan waxe dimbalante la solidarité yërmande la miséricorde et la solidarité sociale être ensemble dans l'unité aller vers l'avant jëm kanam loolu rek laa leen bëggoon a wax jërë ngeen jëf